Euh, dañ ko tëj euh, àgg foofu tamit nekk loo xam ne ni lu jafe la. Mhm. mouvement yi mi ngi gën a accentué kon loolu di firndeel ne amaana Ousmane Sonko mi ngi jege ñu ngi koy gis mhm. noonu. sa koppati euh, bu beige bi at sabadoor bu weex bi. Mhm. mi ngi noonu mu sëgg mel ni am na ku koy ñaanal. mu mel ni kon Ousmane Sonko soreetul dara yàggatul dara mu dugg si otom ngir Aïda Mbène. dëgmal tribunal bu Ndakaaru. effectivement mi ngi noonu Ousmane Sonko vêtu en blanc comme ni ñu ko gisee ci génnam yu mujj yi daanaka weex lay solo. vraiment lii mooy jàmm xanaa la la la woote ci dem gi muy dem ni euh, muy sàkku ay ñaan xamuñu ndax sëriñam la wala bokk ay mag euh, kon yow nekk ci wetam ñoom ñoo koy rek euh, gunge jamono ji waaye ñu ngi gis ñu ko wër tam ay proche mel ni Ousseynou Ousseynou Ly waaw Ousseynou Ly la ñu gis kon Ousmane Sonko muy ree il est serein Mouhamed Diallo moom Mouhamed Ndoye waaw man de man xam nga Euh, gars yi moom nee nañ trois bi Macky Sall euh, da cee def euh, xaw ma mbiri fétiche ak yooyu. waaye ñoom dafa mel ni balan bi dañ leen wax ne jigul Macky Sall. ñoom ñëpp ku ci nekk daanaka boo waree jàmbaarloog moom balan ngay def. Mhm. bon loolu pour tooñ la mais. Mhm. image yi nag dafa daw yaram. Mhm. fii rek nag ngay xamee ne. ku nekk nit nga. même même même ñi nga xam ne euh, ci ci mouvance présidentielle bi lañ bokk leer na ma ne suñu gisee image yi dinañ am lu ñu yëg parce que ñun ñëpp ay doomu aadama la. Mm-hmm. ba pare am na yoo xam ne nit ki ak adversité bi lu mu man mënti métti. Mm-hmm. doog ko yéene. Mm-hmm. te jàpp naa ne amul benn sénégalais buy bëgg di gis moroomu sénégalais euh, moroomu jullitam. dëkkandoowam. di dund moment yi nii wala nga koy gis ci circonstances yi muy jéem ñu koy ñaanal. Euh, mel ni mel ni ku jëm ci guerre wala ci nangam parce que da ngay am tristesse da ngay da ngay da def lépp. mais ci mënti comme lu ñu lu a wax fii mhm. yàlla na mujj ci jàmm yàlla na ci yàlla def ndox mu seet ci kanam mm. moo di woto ba nga xamante fa la jaarandi donc biir Ndamaar boobule moom moo jiitu donc oto boobu ngeen gis muy signalé ci kanam mooy oto bu Ousmane Sonko beneen bi ci topp gis ngeen il y a également à tout juste devant la porte donc y police oto bi nekk ci ginnaaw di oto bu weex ñaar no ñaari oto la donc ab 4-4 bi nga ñi nga xamante ni jege nañ ko lool mais dans les images on peut voir donc euh, ñenn ñi nga xam ne ay avocat am lañ ñoo gën a fës ci wàll wi on n'a pas pu voir ki nga xamante ni moo di Ousmane mais daal compté que ni ñëpp ñu ci bari ñu ngi sol ay masque nekk à l'intérieur des véhicules euh, moom tamit gisaguñ voilà mu ngi noonee yéen a koy gis Ousmane Sonko ngi noonu yére bu weex la sol sol ci ak mbaxana bi nga xamante ni bu bu bu beige la loolu mooy image yi nga xamante ni moom la ñu gis à l'instant